إنني عزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل العين إنني عزت بالإله المعين من جميع الأذى وكل العين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 ba tax na bis boobu tamit dinañ ko dooree njàngum alxuraan bu ñu xëyee istixfaar salaat ala nabi ak euh, ak xasida waaye tamit duñu fàtte suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tëdd ca loolu pour soxla deret ba tax na dinañ ci ànd ak tamit waa commission sociale ñi ñoom ci li nga xam ne moom lañ tuddee don de sang bu tisbaar jotee tamit dinañ ànd ak waa commission d'organisation ci berde yi nga xam ne moom la jox suñu gan yi nga xam ne ñoo ñu fekk si si bis bi bu tàkkusaan jotee tamit dinañ daj ci mbaarum Daaru Xuddus bi dinañ ci ànd ak tamit sëñ Xaadim Mbàkke Muhammad tamit mu ñaaxaat mbooloo mi dolli leen soññi leen ñu delluwaat ci daara ba beneen yoon waaye tamit mbokk yi kenn ku nekk xam na ne wilaya section bu Touba baaxoo na di ànd ak tamit bis bi ay daara yu bari lu ci mel ne Muxaddamatul Xidma ak waa Safinat Amaan bu Kéré Mbay Islaahu Daarayni ak Bichri kon lii lañ leen indi tey comme seen programme du jour lépp lu fi dana leen ko fii si site bi di Wilaya TV di leen ñaanal jàmm te di ko ci sàkku ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ماسكا بالكتاب مسك دليل بيد الخالد البصير المعين وهو عسي ورفعتي وكنوزي وبي أرتجي خياد العيون من بي موت صعب عنيد قالوا تايا له عن موني وهو فقري وعودي وجليسي بعديس ذي المزايا المكين أحمد العامدين أحمد خوسي ولأبي بزاوة الكوكون يا إلهي عليه صل وسلم مع آل الله وآل اليقين من سعاب تبتلوا لوكيلنا خندا li eh, ginnaaw dañ ne way dawlu eh, ñaanal ñi faatu ñun te ñu mën a may deret pour ñu tëdd hôpital bi mën leen dimbali sunu sunu deret moo tax ñu am yëg-yëg bi pour chaque année rek ñëw ñu leen di may foofu. waa ñu am gëm-gëm bi ñëw rek ndax eh, may deret dafa am solo ndax même bu dul yow kenn ku ne am nga mbokk moo xam ni nii ma nga foofu ñu war koo may deret. damay jaamu jaamu yàlla daal ndax euh, ku fekk ku am accident wala ku nekk jigéen ji euh, war a am doom ñàkk deret ñoo ko war a romay deret te ñun ñoo ko mën a dimbili moo tax nag may ñaax mbooleem koo xam ni dégg nga fu ñuy maye deret rek nga dem jàppale pour maye deret ndax loolu jaamu yàlla la. yéeg bi de li ci jiitu rek moom mooy lépp loo xamante ne fédération wilaya bi da koy def rek maanaam dañuy am yéene loolu antu. ca egg tamit fa ko sëriñ ba bëgge woon ak fa ko mbooloo ma jëme yëg-yëg boobu leen ci njëkk am waa xanaa di ñaan ñëpp rek ñu xam ne lu baax la parce que ñi nga xam ne it bu yàlla dogalee ñu amug wéradi ci ñoom la ñuy dem di faju ñoom ñooy ñëw di ko sàkku su ci ñun kon bu ci benn dansé amoon wala benn problème kon du ñëw di ko sàkku su fii ci soo ko defee tamit maanaam dañ ci dimbali mbokki jullit yi man cee dimbali tamit ci sa bopp kon daal moo tax rek ñu xam ne ñëpp rek war nañu àndandoo di ko def aajuwul bokk ci daayira aajuwul ñàkk bokk ci daayira ñëpp la war ca lu baax la rek. mbégte bu rey la ñuy am parce que lii moom nekkul ni c'est la première fois ñu koy def naa dépp ñu ko commencé muy 2008 ba tey jii chaque année dinañu ñëw fii nii pour maye deret parce que dañoo gis ni initiative bu am solo la ndax euh, deret dafa nekk loo xamante ni. kenn mënu koo produire fenn aussi kenn mënu koo jënd te li ma ci gën a marqué tamit comme man damaa bokk ci ñi koy organiser muy wilaya depuis bi ñu ko commencé ba tey ma gis ni à chaque fois kon suñu ko wootee ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko organiser wala ñun ñoo ko wootee ñun ñoo war a njëkk a ñëw teew fii nii bokk na ci li may motiver ba à chaque fois rek bu bis bu jotee nii damay bàyyi sama yitte yëpp ñëw fii maye deret ba pare doog a dem ci njàng mi. di ci soññ nag <clears throat> mboolem sëriñ daara yëpp waaye mboolem jullit yëpp képp ku déggati ñu ne dañuy maye deret na dem maye te yàlla tax ndax deret ji ngay maye dana xettali ay doomi aadama yoo xam ne danañ ko yittewoo te it allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axiihi sunu borom yonente bi alayhi salaatu nee na du dañ di dimbali jaam bi li fee jaam bi mi ngi góor góorgóorlu ci dimbale mbokkum julitam kon at-taawun alal birri wa taqwa lii da caa bokk maanaam di joxe sa deret joxe sa xel joxe sa kàttan joxe sa man-man joxe sa am-am loolu lépp ci taawun lay dugg yàlla na ko sunu borom boole nangu. mën na ne lii dugguleet yaakaar naa su ma fàttali ko jamonoy si Alaaji Baara ba léegi ñu ngi koy def. te at bu ñëw rek suñ ko taxawoo euh, bu ñu demee ba ngoon jot ba nu yeewee euh, résultat bi day gën yokk muy pas-pas bi ak yéene ji. ren ma dégg ñu ñu ne fii ñu ngi fi may dara ci bisu waaye dawla yi mooy ñëwoon fi tey jii doon euh, joxe sama participation ci mayam dara mi mm, pour sauver ay ay ay ay ay vie mm, donc moo tax tey jii ma ñëwoon. ma ñëwoon fii ci seen bërëb bi doon mottali euh, génn ji. te damaa xam ne maye dara nag dafa nekk euh, tiyaaba joo xam ne ju wér-wér ndax sa mbokkum jullit mu feebar nga mën koo xeet loola moom ak day nag jaamu yàlla loolu doo moo tax ma ñëw fi di maye ci deret tamit moom bépp foo xam ne lu ñuy defee lu baax la te lii lu baax la ma ñëw di ko si sàkk ci rek loolu rek la. xëy na mën nañ ko boo dem buñ demee ci hôpital yi danañ ko may ñoo xamante ni yelloo nañ ko loolu moo tax ñu koy def dañu doon ñëw daal ngir maye si ko di wëcc it daal. ولتدم لي قناعة بك ربي آسدا مرشدا بشر مذوني